dañoo daje fi teatre national Daniel Sorano pour investir suñu candidat Amadou foog nañ ne Amadou Ba dina gañe élection yi de dès le premier tour léegi engagé nañu financièrement physiquement intellectuellement suñu militant sympathisant électorat pour que Amadou Ba xam nañ ne bennoo dafa baax nekk benn dafa baax mais suñu dajaloowul mënuñoo gañe bennoo moo ñuy mën a may victoire bennoo du principe rek unité du principe rek nécessité la